da ngeen di mel heure bii fekk na yàlla féewaloo ñu mais cofeel la ñu jàppe ak nangu kuy wax ak moom di dëgg te teg ko ci tekki ci rakkam laa ko njëkkee d'accord ma ak benn question su Aliou Sall ma taxaw wax ko ñun Sénégal lañ dëkk yàgg nañ fi am na yooyu ku ko musoon a wax ca doomu ka jege ka fi mus a nekk heure bii fekk na ka nga doon àndal yàlla taxale leen donc dama leen wax ni leen wóolu leen président Macky Sall te seen xel dal ci moom wax ji nag moo fi nekk gars yi bu ñuy wax ak yéen parce que bu ñuy wax ak yéen da ngeen di mel ni Sénégal ñu bari àndatuñu Macky Sall da ngeen di nax de parce que ubbi leen seen bët ngeen xool Fuuta ku fay gañe Macky Sall waa Siin ak Saalum Macky Sall ak Moustapha Niasse bu ñu àndee ku leen fay gañe à part toute la région de Durbel, à part tout le monde qui pose problème. Département Thiès, Wadi, dire 30 000 voix, là, 50 000 voix. Tu vois, on a gagné gagner Ndambour, quand a gagné. Gars, ils ont des militants, opposition, militants Facebook, les militants WhatsApp, et militants réseaux sociaux. Ouais, à dire, Thiès. lii ñu fi defal président Macky Sall té ñun benn lañu rek ci ñi and ak mom au même moment ñeneen ñi ñi ngi def lu ñu man donc dama bëgg ngeen xam ni président day dem day jall insha Allah rabbi li ci nekk nak moy am ci taxaway bi lu ko ba mu ëllëgé nga bok ci ñi nga xamanteni dinañu am ndam ci mbir mi

nit defal na nit ba tàyyi en tant que sëriñ te ñëwoo toog témoigné ko donc mam awa wax leen ko ni ko bég naa lool ci moom leneen li may bëgg a wax mooy ñun ñi nga xamante ni nag ñooy politique Macky Sall te nekk Thiès il faut ñu ñuy yëkkatee ndoo di dóor a dóor il faut ñuy dolli suñu taxawaay

madame Sall suñu assistante bi nga xamante ni yëkkati na cent mille francs def ko ci leket gi waa ana moo am leen problème ndax ku ci nekk nan la njot nga def ci leket gi dara ñi ngi gërëm bu baax aussi ki nga xamante ni moo di Habib Kane ci li nga xamante ni en attendant ñu koy formaliser dig na ko mouvement gëm sa bopp yal na ko yàlla mottali Seynabou Ndiaye maa ngi lay nuyu bu baax nga xamanteni ni jàmm gën la nek mais mom aussi amna ci taxawaay